mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun ci seen site internet bi di al xadimiya dellu siwaat nañ ci jataay bi nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak yéen di allahu al xalam doon jataay boo xam ne dañ ko jagleel bindkat yi faral di bind ci yoonu murit ak gëstukat yi moo xam ci làkk wuñ man di bindee tey nag war a doon siñ juróom fukkeel tey war a doon ñeent fukkeelu jataay ak juróom-ñett ñu war ci ànd ak mbokk yoo xam ne yu ñu xam lañ ci dëkk bi di Touba rawatina fii ci Guédé Bousso di dëkkub Serigne bu Bousso doon dëkk boo xam ne dëkkub xam-xam la waaye doon it barab boo xam ne ku fi ñëw ko ne da nga yëg ne am na ndono lu riis lu fi nekk ci wàllu xam-xam ki nekk suñu wetu càmmooñ di sëriñ Serigne bu Bousso ñu war koo dalal di ci ànd ak moom ci yenn ci tomb yoo xam te ni dinañ ci ñëw ci kanam ki nekk suñu wetu ndeyjoor di sëriñ Abol Abol Baraka Bousso mu sëñ Sidi Moulay buso xam naa kon ci njëlbeen niñ baaxoo doxalee jataay bi rek dañuy jox sëriñ Sarif mu nuyo ci biir nuyoo bi dañ koy laajaale laaj bi nga xam ne mu njëkk ci laaj yiñ ñu war a jàngat tey jii muy annahda ilmiya muy renaissance scientifique bi nga xam ne moo am ci Touba rawatina fii ci Guédé moom nan la ko gisee ak i daayira bi nga xam ne mooy muassasatu Sulamil Usul ñoom lan mooy seen taxawaay ci ndono li nga xam ne moom la fi Serigne Mbacke bu sa bàyyi. waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatuhu Serigne Mbacke ñoo lay siyaar di la dellu sa wàccuwaay di ñaan yàlla subhaana taala mu barkeel liggéey bi di rafetlu jataay yi nga xamante nii émission allah waxal xalam mi ngi koy def waxoon naa la ko fi ci ay jamono ñu ne dafa am émission bu may fàttali boo xamante ni jasira da koy faral di def tuddee ko min waxyil xalam nga xam ne dañuy fekk benn borom xam-xam boo xam ne daa mel ni dafa nëbbutu def lu am solo ñu génne ko leeral ay mbiram leeral ittijaax bi bi mu nekk ba tax sax si yoon man mi bari na ci lu ma jariñoo ci émission boobu lool muy min waxyil xalam bi jasira def waaye tamit mit law wal xalam bi noonu la demee fii ci Sénégal ndax bëri na lu réeroon wala boog lu nëbbu woon loo xamante ne nii eh, wara asitaar la nekk nga génne ko xanaa adwa ci lumière ba ñëpp gis ko mm-hmm. te loolu di am solo ndax ñaari léeg-léeg di nga gis yu am qualité waaye du ñu feeñ surtout ci wàllu kat ak kat di ñu nuyu sëñ Mbàkke bi nga xam ne moom la ñu àndal jotaay bi tamit eh, ci alxadimiya ci jéego yu rafet yi nga xam ne mu ngi koy def ci wàllu tisaare xam-xam ci dëkk bi boo bëggee ñëw ci laaj bi ma laaj nag eh, di an nahdal ilmiya fii Touba umuman xëy na ak fii Gédé xusuusan ak li nga xam ni mooy anchita yi nga xam ni daayira bi mi ngi koy def li may wax ci njëkk rek mooy sëriñ Touba radiyallahu anhu ku ne xam na ni dëkkam bi dafay ñaanoon mu nekk madinatul ilmi wal maarifa comme ni ñu ko jàngee ci lu bari ci ay mbindam ñaani mi ñaan mu nekk mm, place bo xam ngir gëstu la ak jang ak xam te sëriñ Mbacke Bousso tamit mi borom dekk bi nga sax la lañu jital di nuyu di ziaré sëriñ Mountakha mi nga xam ni khalifa amli am al muridiyya di ko ñaan ya dëgëral ko waye di ci tek tamit sëriñ Omar Bousso mi nga xam moy khalifa xalifa sëriñ Mbacke Bousso waye bo xolé sëriñ Omar euh, bo xolé dekk bi di dëkk sëriñ Mbacke Bousso sëñ Mbàkke Buso bi ko sanc 1918 wala 17 euh, bind na ni Serigne Touba radiyallahu anhu bokk na ci mbébét yi mu fi bàyyi woon mooy ñu am benn jaamiha mooy benn université bu mag boo xamante ne nii nit ñi dañ ci dañuy jóge fu ne di fa jàng si xam-xam loolu wax ju siiw la jox ne tawaatara an Serigne Mbàkke Buso mooy siiw na loolu mu bind ko ci li mu mbébét di fi Serigne Touba bàyyi woon boobu ci la ku ne xam na ni nag waa nit ku baax surtout ku mel ni Serigne Touba radiyallahu anhu waxuma la lu mu ñaan waaye lu mu bébét rek yàlla da koy defal loolu moo tax bi mu sancee Touba ñaan fi mu nekk dëkku xam-xam mbébét ko tamit euh, mu nekk dëkku jàngukaay loolu dafa mel ni dëggu na ci siècle bi ndax euh, li boo xoolee li ñuy wax as sanawaatul ishrin al axira mooy ñaar fukki at yu mujj yi am na benn façon naxda ilmiya bu am solo bu am Touba ak li ko wër biir Touba maanaam ak gox yi yi nga xam ne ci Tuubaa la bokk ci mooy li ñuy wax xalaqaatu diraasa mooy li nga xam ne mooy majalis bi te kenn tudd mënta tudd majalis fii Tuubaa ci tudd woo sëñ Seydi Alxaaji Jaxate mi nga xamante ni ci daarul maarif liggéeyam bu am solo ba mu fa def ak li génn ci moom ci jiil gi ci loolu sax ëpp na ñaar fukkat yi ma wax waaye ku ne xam na yeneen majalis yi fi nekk mel ni majalisu sëriñ Afiyatu Buso waye fu Melni majlis yi ne ci Jima Ham ji mo xam euh, seigne mustapha mbay la ak ñeen ak ñeen ak ñeen waye fu Melni gede gi bo fu ñewé timit kasalik daara yi fi nek lu melni daara seigne sëñ Sidi Bousso ji ñu jakar lool ak daara seigne sëñ Bousso ji nga xamanteni ni kër yu bari ci kër yi fofu fofu dem rek di nga gis ku fay daral xam-xam di majlis kon dafa melni ni xam-xam yu ci Touba ak liko wër te gedde bokku ca dafa tisaro lool li ci gën a yéeme nag mooy barkeel gi barkeel ak gone yi yëg gi yëg ni xam-xam rek mooy li nga xamante ni mooy dellukaay bi ba tax ñu ci tanaafus tanaafusan sharifan mooy njëkkante gu rafet waaye daa am luñ ci dolli léegi loo xam ne xewul woon bu njëkk ñun ba ñuy jàng xëy na loolu bëreegul woon mooy fexe ba muhaakabatul asr mooy méngoog jamono ji mooy bu ñu jàngee xam-xamu majalis ba nga xam ni dëgër nañ ci dañuy topp programme état bi fexe ba li état bi tëral ñu xam ko ba maîtriser ko ba mën a am ay diplôme mën a dugg ci école yi tamit te daanañu wax naan aljamhu awla in am kan mooy soo mënee boole yi nga boole ko moo gën li ma bëgg a wax mooy njàng mi gën na dëgër fi ci Touba ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu yëg-yëg bi tamit ndax léegi ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk nii dafa nekk jamono ju ubbeeku joo xamante ni nii xëy na ku bëggut a xam waaye ki bëgg a xam moom daanaka yëf yi dina mën a yomb ci moom donte li base bi mooy mu fexe ba am niwo ci langue arabe ci alxuraan ji mu xam ci lam ca war a xam mokkal ko wala mu xam ci lam ca war a xam waaye li nga xam ne mooy sariya islaam yi mooy fiq ak la ko wër mu xam ci lam ca war a xam su paree nag jëmmi li nga xam ne mooy tatbiru ilmi yi mooy mu évaluer xam dina yomb lool ci sangoo liir loolu dinaa ci ñëw ci question xëy na waaye kon ràññeeku gu moom leer nañ ni ci gone yi ci gëstu gu ñu gëstu xam-xam ci munaafasa sharifa gi ñuy def mooy njëkkante gu rafet ci léeg nga gis ñu bind ay yu rafet ba léegi li xew léegi sax mooy dañuy taalif nekkoon loo xamante ni dawuñu ko gis lu may ca mag ñu njëkk ña mooy nga gis ñu génne ay téere ci miraas ñu génne ay téere ci langue arabe ñu génne ay téere ci yeneen masala yoo xamante ci fiq la ci loolu dañ ci ñëw ci karam kon ku doon def benn euh, dirasa wala benn taxlil soo mu xaaranaa euh, ci njëkk ak jamono ji da nga na ci njëkk la sawaaxil yi gënoon Euh, gën a néew waaye euh, jamono ji ñu moom teewut sawaaxil yi li muy bari bari bari am na ci côté bi ci Touba ak Gédé ak li ko wër euh, benn nox ba boo xamante ne nii ñu ngi jàpp ci yëf ba léegi ràññeeku ca lool ba fu ñu dem sax dañuy ràññeeku di ñoom tuubaa lañ dëkk ci dégg guñ dégg arab ci am guñ am xam-xam am guñ am culture ndax baraana ku bàyyeekoo fi jóge jóge Touba bi mu fi jàngee dem ci dëkk bee nga xamante ni mooy dëkki naar yi su fa démé dañ koy dañ dañ njëkk li ñu ñëk iktisaf ñom naari moy ndax anta min ahli euh ci mana way gu muy way ci dégg gu dégg arab ci mokal gu muy mokkal alxuraan loolu moom yaakaar naa lu ñu dut baaraam la loo xam ne kenn mënu ko wedd su ma bëggee ñëw ci li nga wax ci gédde nag gédde nag eh, moom tamit naka noonu ndax di gédde taabi li tuuba ci tuuba la bokk rek ndax da boobu dafa imtidaat ñëw ci gédde ndax gédde ku ne xam ni madrasa qadima wa ariqa jiddan bu yàgg la boo xamante ni nii comme ni ma la ko waxee léegi 1917 ba 18 waaw diggante boobu bi ko sancee la Serigne bu Bousso toog fii di jàngale jàngal ak njabootam ak njabootam jàngal ñu baree bari tamit ci yoonu murit ak ci kilifa yi loolu nag moo fi continué ba léegi li ñu naan fa ndox daa rek boo fa demee fekk fa tepp tepp tax na kër goo fi du bu mujj bi bëri na ay lool ay gone yoo xamante ni nii e, dañoo jàng fii ba jeexal e, ku mel ni Serigne Sidi Mawlaaya Bousso rahimahullahu da jàpp ci bu baax a baax ci génneelewaat leen ñu dem bitim réew agale fa senum jang ba tere yi nga gis bari yu jàkkaar nekk suñu kanam am na ci lenn ci gone yo xam ñom ñoko talif taalif te di lu am solo nax da bobu kon feñ na fi lool te daayirati bi nga xani moy mooy daayirati Wusul bi nga xani mo lekkale mbollem jabatu njabootu sëñ bu su ak ak ak setam ak ak ak sopem dañ ci liggey lu am solo ndax mbollem lo xani ni activité xam-xam la fi ci dëkk bi wala bok muy xew xew diine ñom ñokoy taxawé ci conférence ci koor gi ci li nga xam ne mooy munaasabaat diin yi mooy xew-xewi diine yi ci li nga xamante ni mooy ay gan ñu fi ñëw wala yu mel noonu di def ay dawaaraat ilmiya waaye di takwin xale yi tamit di leen jàngal ndax xale moom roy roy rek la roy rek la mën a def képp koo judd ci ay ilmiya bokk na ci sa bu ñu lay borom xam-xam dañ la wuli dafi atin ilmiya loolu tax bi abi bi mu day dimbal nit bu baax a baax bii a gede nag ku ne xam na ne day bii a boo xam ni xaw naa isolé wu ci benn côté mooy yenn yi wu fi ndax day bu dal xëy na loolu xëy na ci stratégie bi nga xam ne moom la Serigne Touba joxoon Serigne Mbacké Bousso mu sanc ko ci la bokk waaye kon li bëgg a wax rek mooy euh, maanaam boo boo doon lim fii tey ci ñi nga xamante ne nii ñi ngi yeewoo ci dëkk bi maanaam ginnaaw bi ñu jàngee xam-xamu diine bi ak majalis bi ba pare comme ni ñu ko xamee dem ci jaamixaatul arabiya ak alami yi àggale seenum njàng ñi fi yor ay licence diggante licence ak maîtrise ba ci doctorat maanaam soo ko doon daanaka jege na fanweer wala mu ëpp ko te loolu téere yi ma des sama kanam dina ko firndeel am ci ñoo xam ne yàlla dogal na amuñu chance su génn waaye am nañ tamit niveau bu baax a baax ci wàllu xam xam bi ndax ku ne xam ne majalis bi mooy mooy base bi ñu def ci lu am solo jàng ba ja ba seenam njàng jeex ñu continuer toog samp ay daara di jàngale bokk na ci Serigne Cheikh naa bu sa Serigne Moustapha waaye bokk na ci ñi nga xam ne tamit ginnaaw bi ñu génnaat nañ dem jàng ñëwaat di jàngale Serigne Cheikh naa bu sama Serigne ak ñu bare bare bare ci dëkk bi nga xamante ni nii ci école bobu rek lañu nek ba légui di ci soñu gona yi di ci def lu am solo daara alcorane nak mom mënuma lako limal mu bari lol waye li ci gëna yé moy eh, dañ koy jang njàngin mu rafet mo xani day and ak tajwid bi and ak limu wara andal lepp kon lol nahda bu bes la bo xani ne ak ràññeeku la bo xani bokut ak la amoon bu ñëk digënté bu gatt xalé bi bala am 18 ans rek daanaka day maîtriser lu bari bari ba ci ag na sax légui di jak di jang yeen langue yi moy anglais ak français dañ koy dégg comme ni dégg arab kon lol ci dëgg-dëgg mom wax dëgg yalla lu wér la moy nahda bu leer na ñi am na xamanteni ni ku ku ku ding ko gis ndax euh, bari na ay xalé yo xam tay buñ bu ñu la arab arabe wala français wala anglais da ngay jort ni manam ci université yi gëna kawé lañu lañ da fekk firé lañu jàngé kon loolu am solo la. jërëjëf sëriñ Sarif ci tontu yu am solo yi nga xam andi goko ko nga dëkk bi nga xam moy Touba sëñ bu mag bi radiallahu taala anhu bi mu koy sànc dafa ñaan mu nekk dëkkub xam-xam euh, ci ay wax yu baree bari yom dini nii dañuy dajeek mom ci ay mbindam waaye nga leeralit muy xam-xam jamono ji ñu toll kuy seetantal ak a aka da nga yëg ne lu tàmbalee tasaaroo la lool ci biir dëkk bi bu yàgg ay boroomi xam-xam ñu ngi fi woon ñu sampon ay daara di jàngale xam-xam muy daara yu majalis nga di ci daara yu baree bari waaye gone yi fi nekk tamit boo xoolee jamono ji ñu toll day mel ne yemuñu rek ci njàngu majalis dañuy boole jàng ci majalis bi ba jeexal téere yañ fa war a jàng wëlbatiku demaat ci école yi jàngaat fa ba am diplôme yi nga xam ne moom lañ koy sàkku ñenn ñi génn jàngi biñ dellu see jàppaat ci liggéey bi am ci ñoo xam ne fii lañ jàngee lépp mën naa wax ne génn ñu jàngi biñ ñëweet Eh, ñoom it dañoo ànd ak ñële rek nekk ci tool bi muy jàng ak jàngale ak di bind ci anam yoo xamante ni anam yu wuute lool loolu nag li wolof di wax naan tungali du teew ñuy nataal eh, loo xam ne buñ ko waxee day am firnde ndax suñu kanam lii ñu gis nii lu mat fukki téere ak ñaar la fukki téere ak ñaar yoo xam ne ñi ko bind eh, ay ndaw lañ ñi ci ëpp maneef naa wax ne xëy na waruñoo am juróom fukki at mm-hmm. wala ñeent fukki at sax mm-hmm. juróom fukki sax bari na mm-hmm. ñenn ñi xëy na seen fanweer matul danañ ci ñëw euh, sëriñ Abo su ko defee laaj biñ lay laaj muy téere yi nekk suñu kanam mel na ne téere yu fasantikoo la euh, ndax mën nañoo xam ana wendi maanaam téere bu ne ni nga xamee ne noonu la ko boroom tuddee ak it façon téere yi waaw téere bu ne ci xam-xam bi mu jëm wala ci fànn gi mu jëm ak lan moo taxit ngeen tasaare ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mm, mbokki jullit yi mbokki taalib yi mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen télé bii di alxadimiya eh, ci seen émission bii ñu tuddi allahu wal qalam ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziyaara di ko teg ci loxol sëriñ Mbàkke mi nga xam ni mooy def émission bi émission bu am solo bi di nuyu suñ Cherif Bousso mi nga xamante ni ba tey moom lañ seqal waxtaan wi lim ubbee am solo lool kon du jariñ see jaaraat dañuy mottali rek tàmbali sof fi mu yamoon rek di siyaara nag borom dëkk bi te mooy xalifa bi Sëñ Omar Bousso mu Sëñ Abdul Xaadir mu Sëñ Mbàkke Bousso di ko ñaar mu yàgg fi lool te wér di ko ziyaare Sëriñ Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride ginnaaw loolu Sëñ Mbàkke ñi jublu ci laaj bi ci turu daayira Sulamul suul ci seen laaj na bi nga xamante ni ñoo yor wàllu xam-xam bi wala lépp loo xam day yëngatu ci mbirum xam-xam ñoo ko yor ci seen tur rek lañuy ñuy eh, li nga laaj nag am solo lool mooy téere yi benn mu nekk ci lan lay wax eh, ak lan moo tax ñi ñi mool ko génne ko moo mel ni ñaari laaj kon bi ci njëkk rek dañuy wax ni ni nga ko gisee téere yi fukki téere la ak ak ñaar yoo xam nii benn mu nekk yu am solo la suñ ko doon tànn dañuy wax ni mën nañu njëkk wax tax ñuy génne ko day mel ni ci jamono ci ginnaaw laj na bi dafa jekki-jekki rek xalaat ni eh, dëkk bi li fi nekk ci xam-xam bari na lool ak li ñu fi bind te suñ ko bàyyee seeni borom mën nañoo dem ba bax su yooyu jekki-jekki jamono raw ko léegi soo koy defaraat suñ ko bëggee dem ba koy bëgg a génne defaraat ko da ciy war ndax baax kenn xam nañ téere moom jamono biñ ñu ko bindee génne ko ci moo ca gën lu mu gën a yàgg rek su demee ba ci yàgg dañuy gis ni soo ko xoolaatee da nga am lu bari loo ci mën a defar loolu moo tax ngay cité dañuy bind at-tabxal ula at-tabxal thaniya ila axiri li koy waral mooy lool kon léegi denc bi lu mu gën a yàgg rek day gën a indi jafe te gis nañ ni suñu mag ña ci seeni jamono dañoo fonkoon taalif lool ma des joxe ku mel ni eh, sëñ Moulay bi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu xalifa sëñ Mbàkke Buso téere bi mu njëkk taalif moo ngi ko taalif bi ñu ubbee jumaay njaareem mooy téere bi mu tuddee bu xeetu mu sallinal xachan noppi woon ko sëñ Mbàkke Buso suñ bàkk bu sa def ci benn taqriis bu rafet mi alwaladul baar xool boobu ñoom nga xam ne liñ daan ndamoo mooy wala li ki ki yoon mooy dañ daan taalif jox seen waajur mu toppal leen dañu seetlu nag jamono boobu loolu amoon ci jamono 1925 nga xam ne ba ñu ubbi jumaa njaarim loo ko taalif moom euh, ñoom nag noonu ñu doon def moo waroon di di sax di am ba jamono waaye gis kenn xam na ne jamono moom day dox ba ci jamono yu mujj yi nag daayira bi nag léegi am benn masron mooy projet mooy ni xool daal li nga xam moo fi nekk ci xam-xam ndegem yitte jam dafa bari te xëy na jamono boobu la nekkoon nekkatul léegi daayira bi féetewoo loolu fi nga xam ne foofu la mag ñi féetewul mooy lépp loo xam ne juddoo na fi ci xam-xam mu jëm kaa daal saytu ko dajale ko xool ko baax xam mën naa génn ak la ca mën a génn ñi génn ko euh, topp jéego yi kon loolu moo tax daayira bi daal di jug ci euh, génn benn som génne fukki baax ak ñaar yoo xam teewoon nañ ci moom gannaaw bi nga yu bari ñëwaat nañ ci gannaaw bi kon loolu day wane ni moom ab jéego la boo xam ne ubbi na ko wane nii li ko tax a mool yi mooy li fi nekk ci xam-xam te nit ñi yor ko denc ko ci seen kër yi bu ñu ko bàyyi rek mu dem fa ba màggat fa waaye kenn ku nekk loo bindati ëllëg boo ko joxee daayira bi dina la ci defal ay pexe ba mu génn kon loolu ci gàttal mënees naa wax ne moo tax daayira bi jóg ndegam daayira bi ci xam-xam lay yëngatu suñ mosaan wax xam-xam rek dañuy jàpp ne mooy waxtaan yi xew ci màggal yi wala koor wala yu ne demee waaye xam moom day yaatu loo xam ni ëpp na sax yooyu yëpp lépp loo xam dafa yëngatu ci xam-xam te téere kenn ku nekk xam ne lu am solo la ndax téere mooy ndab li nga xam ne mooy taawu xam-xam téere mooy li nga xamante ni bu amutoon bari waanu xam-xam boo xam ne du egsi ci ñun kon téere mooy bool bi nga xam ne ni nga xam ne ab eh, añ buñ ko toggee ci kër ba mu sotti te amuñ fuñ ko sotti mën naa yàqu wala ña koy jariñoo du bari kon téere mooy li nga xam mooy toxal xam-xam jëli ko ci fu sori yóbbu ko fu sori kon loolu moo tax daayira yi bokk na ci ay jéegoom léegi yu bees yi nga xam ne feeñal na ko ni di génn ay téere di ko mool lépp loo xam ne lu aju la ci xam-xam mu génne ko tasaare ko fa mu war àgg mu àgg fa beneen laaj bi nag ni ko waxee ni ma la ko waxee léegi téer yi fukki téere la ak ñaar wala fukki baxs ak ñaar suñ ci doon jël par benn ñu tàmbalee ci bu njëkk bi téere bi ñu ngi koy tuddee mabaadi un asasiya li taxrij al ahadis an nabawiya mooy benn téere la boo xam ni day jàngale ay mabaadi ay ay ay jàng ay bunt yu gën a asasiyaat yi nga xam ne daal yu mënta ñàkk la pour nan la ñuy taxrij ahadis annabawi nga xam ne boo seet kii day jëm ci wàllu mustalax hadis nga xam ni moom joxe nañ ci ay namasi ànd ci ay keem bi si topp mooy lu ñu tuddee albondul joxraafi li taarix indaxe eh, téere bi eh, Sëñ Fallou Assane moo ko bind moom it téere bu yàgg la yaakaar naa moo ci baax bi ci gën a yàgg ndax moo ko binde woon libi 1992 biñ nee ba daayira bi di di lijjanti lii nag ci la ko joxe waale kon nga xam ni bokk na ci moom it nga xam ni wàllu géographie lay wax nga xam ni luñ eh, xëy na matière la wax ni bëriwul ñu ci bind fii nga bu am solo la ma ne sañ cee dellu moom it xëy na ci matière yi ni bëriwul borom xam fii di ci bind moom mooy ñetteelu téere bi ñeenteel bi si topp mooy baax boo xam ne moo ngi tudd baaxsun fii baaxsun ak fii Cheikh Hassan Bousso bii ci suñu asan bu so la jëm suñu asan bi nga xamante ni bokk na ci ñi doon eh, yoroon daare suñu mbàkk bi su di ci jàngale benn sëtam bu ñu wax suñu mulaay bu su moom bind ko jëmale ko ci moom benn téereem bu mu tuddoon tamrinul atfal fi taabudi qabla an tajiba alayhimul amal léegi mu sarxu téere boobu ak taxlil masail fiqhi yi nga xam moo ci nekk mu leeral ko ba mu gën a leer eh, juróomeelu téere bi mooy lu ñu tudd al fikru tarbawi hinda Cheikh Mbacke Bousso moo ngi wax ni maanaam tarbiya te mooy éducation yar jàng ak jàngale nan la nan la ko suñu Mbacke Bousso gisee woon ci xalaatam suñu mbokk sëriñ Xaadim Bousso mu suñu Bachirum suñu Njaaña moo ko bind mooy nekk téere bu am solo boo xam day jëm ci wàllu eh, yan xalaatal téere bi lu mat bàyyi xel la ndax mag ñi seeni xalaat yi ñu yoroon ba di ci eh, jaarale di jàngal ay nit ñi am xam-xam lu mat a bàyyi xel la lu mat a nafaraat la kon moom gis gu daayira bi gis ni am na solo moo tax ñu boole ko ci yi nga xamante ni toxal nañ ko bis yu topp bi xam naa bi moo ngi tudd moo ngi tudd almaratul mithaliya fil islam xam naa booy seet ci xilaaf bi daf mel ni dafa xaw a kii waaye mithaliya fil islam benn soxna bu ñu wax maam Daaro Mbàkke moo ko bind di ci wax eh, moo ngi nekk fii ci gerte moom di ci wax jigéen yi ñu war roy nan la war mel moom nek nekk baax su taxarruj ci jaamihatu Cheikh Ahmad Bamba bok ci ñafa fa genné kon baax am solo la nga xamni ne lañ ko bind moom it baax bi tamit ku ñu wax serigne abdullah hadbu so moko bind mo ngi tuddu Cheikh habibullah Mbacke hayatuhu wa juhuduhu at-tarbawiyya kon lool day wone nak lepp lu yëngu ci xam-xam rek yamaduñ ko gëdé sax waye day genn mo ngi wax ci serigne habib Mbacke eh, ak dundam ak effort yi nga xamni doon nako def ci walu jang ak ba formé ñu bare bari ci wa dëkk bi momit bisi bi topp ba tey moo ngi koy tudde alxorriyatu bayna al manzuri al islaami wal garbi kii moo ngi jàngale ci li ñuy tuddee xorriyata mooy li ñu tuddee liberté ci diggante ni ko lislaam gisee ak ni ko waa occident yi gisee ci loolu lay wax bu ñu ku ñuy wax sëriñ Moxtaar Buso génne jaamiatul azhar ci kuliyatu euh, kuliyat usulu diini xismu xaqida euh, wal falsafa moo ko bind moom it doon ci leeral ci loolu kon moom it nekk gës bu am solo moom it Mm. bi si topp mooy alxadiisul munkar nga xam ne mooy moog bi ñu waxoon bu njëkk ba rek sorewuñ xadis euh, teere la boo xam ni moo ngi jëm ci wàllu mustalahul xadis wala ci xadis bi sifatin am rek nga xam ne suñ sharif mii ñu bokkal émission moo ko def nekk baax su taxarrojam mooy wala bu la moo ko bindee jaamia al jaamia al islaami bi madinatul munawara nga xam ne moom it teere bu am solo boo xam ni xëy na bokk na ci matière yi nga xam ne ñoo fi bes ci jamono ji nga xam ne lu ñu soxla la am solo loolu moom Euh, bii tamit moo ngi tudd mimiyatu Cheikh Mbacke Bousso muqaarabatun adabiya wa dirasatun tahliliya téere bi nag ku ñu wax Cheikh Ibrahima bu so euh, nekk doom ci sëñ Abo Bousso mu sëñ Modou Bousso mu sëñ Mbacke bind euh, nekk Maroc moom it bu am solo jàngat benn xasida boo xam ne sëñ Mbacke Bousso moo ko bind mu jàngal ko ci wàllu adab bi ak taxlil ko bu baax a baax nga xam ni moom it téere bu am solo la ci bind yi nga xamante ni dañuy delloo ñu gën a nafar ci bind mag ñi bisi bisi topp ba tey ñoo ngi koy tuddee balaaxatul iqnaa fil xitaabi siyaasi risalatu lisaanul xaq yatakallam li cheikh Mbàkke Buso Namuusa Jën mu nekk téere boo xam ne day wax ci risala lettre bu am solo boobu nga xam ne sëñ Mbàkke Buso moo ko bind tuddee ko lisaanul xaq yatakallam nga xam ni day waxin wu yéeme woo xam ni xëy na miinuñu ci borom xam-xam wala ci kenn mu di ko waxee mooy mu jël risaala boobu Euh, jàngal ko ci wàllu balaaxa euh, ni ko sëñ Mbàkke bu sa defee ci rawat ni ci discours boo xam ne ci politique la jëm nga xam ne xëy na euh, loo li ko waraloon jër day guddal waxtaane waaye ci gàttal ci jamono jooja rek sëñ Mbàkke bu su bind bu am solo ay mbir yi fi xewoon mu jot risaala boobu tax taxlil ko moom Cheikh Ibrahima Bousso mi moom bokk na ci baax si yi mujj a bind nekk bu am solo lool kon sëñ Mbàkke daal yaakaar naa ne suñ doon gàttal day mel nii Euh, loolu moo fi dajeegut ci ay baax ak yoo xam ne daje nañ ko waaye moolaguñ ko mu nekk baax yu am solo yoo xam ne benn mu nekk daal jamono laaj na ko ci ci xalaat bi ak ci waxin wi rawat na ni suñu chérif doon waxee léegi ci nahda ilmi bi nga xam ne mu am a yaatu bu mat fépp ndax suñ bi mu sanc dëkk bi nañ ko waxee looloo ko taxoon a jóg suñ bàkki su bikay suñ bi di daal fii tamit lool lool la bëggoon mu saxal ko fi kon suñ demee ba jamono bi gis ni nit ñaa ngi góorgóorlu ci xam-xam kon lu mënuñu lu dawaayir yi fi nekk kon rawat na daayir sudum rasul mënul lu mu gis lépp loo xam ne ci xam-xam la mu jàppee ko ci jëm kaa génne ba ñi ci mën a jot jot ci yëgal ko mbooloo yi xam ni lii liñ ci jublu rek jubluwuñ ci sax eh, ci turu daay waaye liñ ci jublu rek mooy soññaale xale yi ak ñu ci toll ñëpp ñu xam ni xam-xam dafa war a màgg dafa war a yëkkatiku dafa war a gën a yaatu bu baax a baax ba ñëpp jot ci kon Sëñ Mbàkke loolu rek lañ la ci doon wax asalaamaaleykum. jërëjëf sëriñ Abul Baraka ci tontu yu am solo yi. mel na ne ni nga ko leerlee lii ñu tiim toll ci fukki téere ak ñaar yoo xam ne li ci ëpp ma def naa ne njabootu waa da ñoom ñooy ñi ko taalif yenn yi jëm ci sëñ bu Buso ci boppam wala ay téereem wala lenn ci ak njabootam waaye buñ jàngatee téere yi dañuy gis ne mel na ne fànn fànn yu wuute la ndax am na ci yu jëm ci wàll politique waaye am na ci tamit yoo te ni mi ngi jëm ci wàllum xadiis am ci tamit yoo ni maneef naa ne ci falsafa lay gën a jage lu mel ne alxuriya bayna al manzour al islami wal garbi ak lu mel ne loo xam te ni mi ngi jëm ci alfikra at tarbawi muy xalaat lu aju ci wàll yar am ceet yoo te ni ci wàll tarjama la jëm muy nett li jaar-jaari nit ku mel ne sëriñ Assane Bousso ak euh, sëriñ Abibou Mbàkke kon li muy wanee rek mooy li sëriñ Sarif doon wax sànq lii firndee na ndaw ñi ñi ngi yëngu ci xam-xam ñi ngi tasaare xam-xam mooy téere yi wane na ko xam na xëy na waxtu wi sax moo ñu mayut ñu xuus téere bu ne ñu jël ko càmbar ko wane li ne ci biir dëgg-dëgg waaye jombur xëy na bala ñoo jeexal danañ jox sañ Sarif mu jàngatal ñu benn téere ci biir téere yi nga xam ne moo nekk suñu kanam xam naa suñ Sarif laaj bi ñu lay laaj ginnaaw biñ sante sëriñ Abo mooy jamono ji ñu toll mel ne ndaw ñi wàllum liir amut jangat yoo ci jàngat ak it it ñiy yëngu ci xam-xam di ko tasaare ak di talif, ni nga xamee noonu lañ leen war a taxawoo ak niñ leen war a jàppale dëgg jërëjëf Abo ci taqdima bu am solo bi nga def ak leral gi nga leeral daayira bi ay xatawaatam ak uh, ndaw ji nga xam ni ñoo taalif yu am solo yi ci leeral yu rafet rafet waaye uh, jërëjëf sëñ Mbàkke ci laaj bi ma laaj Eh, te mooy maanaam eh, taxawaay bi nga xam ni mm, ndaw ñi war nañ koo taxawee ci wàllu lii rek yu mel noonu du mooy laaj bu njëkk bi laaj boobu li ma ci njëkk ñëw mooy dafa mel ni eh, wax nañ fi ni léegi am na ci parti bi ci ndaw ñi ñoo xamante ni nii ñu ngi yittewoo xam-xam bu baax a baax a baax waaye nag laakin toujours mooy yàq yëf yi ndax ca man ci biir laa bokk mooy ñun ñëpp la euh, dana am fatara boo xamante ne ni fataratu zéro wàllee doon ci ñun mooy dañuy nekk koo xam ne dañuy sawar lool jamono ñi nekk ay étudiant wala yu mel noonu di ci wàllu bind da ngay dem ba sax baxs bi soo ko xoolaatee ci misaal sama baxs bi rek maa ngi ko defoon 2005 euh, waaye bi ma ko bi ma koy xoolaat damaa ndax man lii maa ko bind sax ñoo xamanteni man da ngay jaxlé da nga nan da nga nan légui man dama tayel légui kon eh, li borom xam-xam yi wax naan kasratul wasail wa daxafatil himam moy jumtu kay dafa bari waye yitte yi mo xawa new néew foog na ni ñom suñu mbàkk bu so ñu di borom dekk bi nga xamanteni maktaba bu am solo bi señ abo mi xeyna na xaw seen moko moko ubbi ngir dundal xam-xam tudde ko do señ mbàkke bu so yaaka na ñom ñom suñu mbàkke bu so buñ fi nekkon tay ji manam jamono ji ni jumtukaay yombe comme niñ koy waxe bi zir ci ben ndaxtatu zir rek nga bëss ab bidon rek mu andil la alaaful ma'lumat ay jooni information yo xam nga yati tibb la nga soxla lool nak xeyna yomb gi mu yomb motax ñen ñenn ñi xamuñu njariñam li lima bëgg wax moy téré yi légui mu ngi bari mom waya problème bi moy lire ko ndax fi ne eh, nit ki soko rajon ci semaine bi ñaata téré ñaata téré nga lire sax day jaaxle maanaam lire ben téré muy ñun nak xëy na ñu ngi liir leen waaye waaye xiraa a jàdd moo amul liir gu wér maanaam ay information la ñuy liir wala ay axbaar wala loo xam ne yuxazi man hajaka mooy yow sa fikra bi nga gëm lu koy taxziya rek ngay wër foo ko gisee nga las nga copie collé ko liir ko commentaire ci man li bëgg wax mooy eh, Facebook ak i mbokkam euh, baax nañ lool waaye am na ci côté boo xam ne yàqal nañ nit ñi eh, li nga xam ne moom la waroon a taxawee li ma bëgg a wax mooy e, xadaasa bi mooy bees bees gi xew ci jamono ji dafa yóbbu lu bari ci suñu temps ci wàllu liir te ñun ñëpp xam nañ ni jël ab téere di ko liir di ci def say mulaaxaasa ak say tas jilaat lim la mën a jural ci e, dolli la xam-xam waaye éwali yi tan mi yeesa ak maxaara ci xiraa ak yu bëree baree bëri sa e, jumtukaay yi nekkoon ci yow ni mu koy yeesale ni mu koy def bokkut ak ngay ngay liir ci internet ñi kese donte liir ci internet yomb na baax na waaye li ma bëgg a wax mooy dafa bëri ay shawaaxil soo koy dangay liir sax yaa ngi ñu indil la benn publicité wala dara wala am lu la gàllankoor wala sax nga dugg ci yoo xamante ni daanaka ay jadeli yaat la yoo xam ne amul njariñ wala ñu ko bind sax taxasu suñ ci mbir dañu bind di sànni rek euh, kon li bëgg a mooy internet bi bëri na am lu gàllankoor gum def ci côté boobu donte ngànnaay la boo xam ne comme ni ñu ko wax silaaxu xadday ni la jumtukaay boo xam ne dafa am ñaari kii donte nag boo ci bu fekkee xam nga ko ci këm gën a bon daal mooy ki nga xam ni dafa dafa dafa niwam dafa dëgër a gudd lool waaye ki nga xam ne sax jàng na ba niwam dëgër sax mën na cee tibbe lu am solo di ko jariñoo kon euh, liir gi xaw nañ cee tàyyal ci côté xëy na nag loolu jamono ji moo mel noonu moo ko bindoo waaye war nañoo gën a góorgóorlu bu baax a baax daanaka boo xoolee nag loolu zahira alamiya la mooy àddina bépp koy jàmbat boo demee Amérique dem Europe faneen faneen faneen école yi ak xale yi li ñuy jàmbat mooy daaful xiraa mooy feebal gi nga xam ne feebal nañ ko ci wàllu lecture moo xam ak làng bu mën di doon nag nga xamante ne nii pexe yi ne ñu ngi koy jéem ngir rek bëgg xale bi euh, sawar ci liir ba ci état Sénégal sax jamono yi mi ngi teg benn programme LPT lañ ko tudd xamuñu mel noonu bu am solo boo xam ne xale bi dafay liir loo xamante ne nii euh, olof la waaye dañ koy bindee français nga xam ne loolu nag baax na loolu lépp ci dalay sax a sawarloo ndax xissa bi mu wax mu xam ko dégg ko ca ca faxamu jus ula mel xiraa ndax xiraa benn faxmu la ak ak ak liir da ngay comprendre pare xam man man koo wax waaye xëy na boo daa liir loo xam ne munoo koo mënoo koo comprendre xëy na moo tax nga ngaa tàyyal waaye li ma bëgg a wax mooy liir gi moom dafa wàññeeku lool lool lool lool maktaba yi day fees dell waaye doo fa gis kenn boo demee daaru minnam bëgg démb dem nañ fa fekk maktaba fi suñ Muntaxa def suñ bi am solo lool maa mujj jaaxle sax mboolem maraaji yi nga xamante ne nii soxla nañ ko ci àddina bi ca mu nekk ci jaamihaat yu mag ya boo demee ca jaamihaat yi ci bitim réew di ko fa fekk ci jaamihaat arab ya moom def na ko foofu nga ñëw ci maktabatu Seexul Xadim bi nekk ne ca ca daaray kaamil nga ñëw gede gi maanaam ba ci ñun ñi sa say biir néeg ak feneen ak feneen ay téere dafay nekk waaye daanaka day fënd loolu nag kenn xamul lu ko waral euh, li ñuy wax euh, tafra ilmiya daal dafa am nit ñi daal di tàyyeel am na nag ñu ci yàlla musal am na ñoo xam ne foo fekk moom ñu ngi liir bu baax a baax waaye bëriwuñ nag boo koon mu xaarana demel nis ba da ila la euh, bil mu xaarana ak li waroon a am te nag li fekk delluwuñ ci liir moom ndax li ñuy jël ci école yeeg mel noonu borom xam dañ koy faral di wax maanaam da ngay jëlee ca ban yaak yooyu ak ak ci jataayu xam bi ci dëgg-dëgg du xam-xam waaye li nga xam ne da nga ko kasabul sa bopp taxalumu zaat yi nga xam ne yaa ko jàngal sa bopp xamal ko sa bopp ginnaaw bi nga amee niveau nga koy liir ba xam ko ba iktisaaf ko loolu mooy jëmmi xam-xam dëgg boo gisee mag ñi suñu mbàgg bu so mi masalan ñu fi doon tudd léegi soo dellu ci ay téereem ak yu mel noonu maanaam da ngay xam ni dafa liir ndax dangay gis muy wax ay la ñuy wax i xaalaat yoo xam nga i xaalaat daan la téere bi daan la masala sàngam bi de diw wax na ci nàngam waaye diw ba mu ci waxee nàngam diw da koo tontu ni ko nàngam ci téere sàngam boo dem ca paas sàngam wax na ko fa nàngam waaye lam ko fa de nàngam bi mooy li wér xam nga loolu ko dul liir mënu koo xam kon liir dafay day day tax sa zakira day dëgër liiru téléphone yi nag ak yoo mel noonu dafa mel ni barke bi cay xaw a des daal li ma seetlu man donte nag xëy na baax na lool kenn du ko kenn du ko kii mais jar nañu xoolaat ko bu baax a baax a baax du xool fa ngay tibbee ak la nga cay tibb ak fexe ba am masron masron boo nekk maanaam fexeel ba euh, téere sàngam ba ma naa fexe ba ci weer wi la ma ma liir ko wala yu mel noonu waaye bañ a bàyyi sa bopp rek alaa mahabir yaax ci dund gi dafa gaaw kon dafa mel ni bëgg wax rek mooy ndaw ñi xaw nañ cee sàggan waaye xëy na yu mel nii dina leen motiver ndax bu ñu gisee seeni moroom di def yu mel nii tax ñu gën a góorgóorlu ca wàññi li nga xam ni mooy alxaabul internet ak yeneen yi nga xam ne am solo sawaaxil yi yi nga xam ne xëy na xale leeg mu jublu ci yu mel noonu waaye nag lu li kulli shay'in fatratuhu lu ci nekk na nga xool nga jox ko àqam nag bu liir jotee nga liir bu baax a baax xëy na bu bu tarfiix jotee mooy feexal sa xol nga feexal sa xol waaye nga fexe ba xam ni alwaxtu sayfun maanaam boo ko gaañul rek mu gaañ la ca samsu bi mom comme ni ko mag da wax jant bi du lo xaar saa su xey rek mu ngi dem ca waxtu dafa cher trop kon jar na di ko di ci profito bu baax baax bokku na ci liñ tuddal suñu Mbàkke Buso ak magni ñu baax ñepp moy nee na dawut sàggan dara ci waxtu ne wané nako na ko ndax ko koo xam ne dañ la eh, ab téré liggéey nga ko ci 3300 goo xamante da ngay observer jant bi loolu nit ku nit ku gaaw yokkat wala ku sagan du ko def kon li nga wax mooy daasaat himam yi moy yitte yi mom warna na bu baax baax ñun ñepp ci dugg ci biir nak Euh, ca da ngay dem ba sax li ñuy wax ni nit dina wax benn suñu benn ustaas bu am bu baax suñu Abdou Karim euh, daan a ko wax ne nit dina dégg arabam yàgg ak dégg arabam deltu ginnaaw li ko waral mooy day dem ba ko dootu liir dem ba mel ni ku xaw a fàtte hmm. ñu ci werante arab des na ko fàtte desu ko fàtte waaye li mooy boo bàyyilikoo rek sa niveau hmm. académique dina dina wàññeeku bu baax a baax kon liir gi moom ñëpp la war waaw euh, jërëjëf Serigne Sarif xam naa am na beneen laaj bu ñu dugalaale woon sax nga fàttali ma ko mooy ñi nga xam ne ñooy borom alal yi waaw kay ban taxawaay lañ war waaw bu dee ñi nga xam ne borom alal yi la xam nga jihaad dafa yaatu sabilillah dafa yaatu mooy bu fekkee da ngaa ne ci dëkk boo xam ne yow yàlla dimbali na xëy na euh, xam-xam yu mel noonu xëy na yow amoo ca bidaa ah. waaye yàlla jox na la kàttanu boobaa li la war mooy nga fexe ba yu mel nii di xew mooy ay téere yu ñuy taalif wala ay gone yu bëgg a jàngi comme ni Serigne Sidi Bousso Mawlaaya defoon fexe ba génne mbañ moo xam bari ci li ci net yi bi la bokk ñu jàngi ñu ci ëpp ñoo taalif yi kon loolu meññet la mu fi nekk di wax ne jeex bu mukk nga xamante ni ab bazra ba jëmbat la bu sew boo xam ne nga ko jëmbat mu dem ba jur lu ne jur tuyaa ba jur jeex waaye defar ab société te dafa mel ni xiraa moom lil jamih kon dafa mel ni nit ñi nga xam ne yàlla may leen kàttanu alal lii force la boo xam ne war nañ ci gën a góorgóorlu ndax léeg-léeg yëf yi nga koy dégg ak ni mu dem sax duñ bokk maanaam moo téere tur wee rëy rek nekk waaye maanaam mën naa ba jafe léegi jamono yi ak jamono ji ñu nekk ak tarafus bi am maktabaat yi ni ñu baree maanaam kon li may soññ ñi nga xam ne faaxili xayri lañ mooy ñiy def lu baax ak borom alal yi fu ñu déggate lu mel nii loo xamante ni nii ay téere lañu moo xam turaas bu ñu war a tax nañ ci ñëw fu mel ni gédé gi bari na ay maxtutaat ay téere yoo xam ne Sëriñ Mbàkke Buso ak njabootam ak ñoo ko taalif ba ca ba léegi dafa nekk maxtuuta maxtuuta mooy loo xam ne mbindum loo xam ne ca la nekk kenn mooleegu ko kenn génneegu ko te yaakaar naa sax daayira bi am na ci benn masron bu am solo boo xam ne suñu ëboon na ci ñëw ci téere ne dañoo taxaw ngir génne ko mool ko ba mu nekk fi tanaawulil jamih ñëpp mën koo gis te yaakaar naa ni eh, dina dina am solo lool ndax eh, te am yoo xam ne bu nekkee ci eh, mag ci ci gaal yi rek ñu denc ko noonu su yàggee maanaam comme ni ko suñu ëboo waxee daanaka dootu am benn xiima ilmiya waaye suñ ko génnee waate ne delloosi ko taxqiq loolu lay jariñ ñu fexe ba méngale ko jamono ju xool li nga xam ne moom ca moo manqué woon wala boog lañ a dabaatal ñu dabaatal ko ca taqdim ko mu nekk benn mu yor benn xar kanam dina am solo loolu nag borom alal yi ak ñi nga xam ne yàlla may na leen doole ci côté boobu ñoo ci mën a jàpp ndax borom xam-xam moom ñaare euh, miskin lay doon maanaam dina mën a euh, kii ne waaye alal ji doo du bari loolu kon léegi ca yàlla moom moo bind doon yëf yi dañoo séddale kenn ku ne mu jox boo xam ne fa a jàppe kon li bëgg ki nga xamanteni ni dafa japp ci xam-xam ba mu tisaro amna na ki nga xani ne moo taalif lañ ci duko yakal ci yolam dara comme ni ñu ko xamee ci diine kep xam diine xam nga lolu kon warna na ku déggati lo xamanteni téré buñu wara war la nga fexé ba saw ñaar dëram dem ca lolu dula la dara ci dala yok rek ci itam tuyaba jax jax bu comme ni ko sallallahu alayhi wasallam ni karim manam, bepp araf bu bo xamante ni ma koy yang koy jang wala diko jang wala ka nga wala wala ka nga jangalat araf booy mu jàng tuyaaba ca ci nekk day dellu ca ka nga xam ne moo jàngale woon alxuraan ji noonu la mbir mi demee tamit ci wàllu nafaqa fi sabilillahi mooy dundal ci yoonu yàlla dundal ci xam-xam nag moo am solo ndax xëy na borom alal mën naa joxe ñam mën naa joxe lii mën naa tabax kër mën naa tabax jàkk waaye bu bu tabaxee xam-xam am na loolu lépp ndax xam-xam yu ñaare ëllëg moo jur yooyu yëpp kon lu war a lu ñu war a profité la ngir ñi nga xam ne yàlla may na leen doole ñu jàpp ci mel nii ba nga xamante ne nii dina mën a jëm kanam ba mën a jàppale ba yëpp mën ko mën cee jot. jërëjëf Serigne Sarif ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu yu am solo yooyu ndax it kuy yëngu ci xam-xam ak a jàng ak a jàngale da nga seetlu ne jamono ji mel na ne ni ndaw ñi daan liiree wàññi ko na bu baax a baax te jumtukaay yi xarale yi. bokk ci sabab yi ko sabab kenn ku nekk ci ñun rek boo xoolee ci ginnaaw tuuti da nga yëg ne toll nga jamono yoom te nii li nga daan xëy di liir ak jamono ji boo ko comparé day soree lool te nag it liir it bokk ci xam-xam ndax xam-xam moom doo yem rek ci lañ lay jox ca daara ja wala école ba am na ci loom te ni yow yaa koy gëstul sa bopp yaa koy liiral sa bopp nga junj lu am solo te loolu mag ñi ñëpp daanaka noonu lañ meloon sëñ bu mag bi ak sëñ Mbàkke bu sa koy liir ay téereem danga nga koy gis mu lay joxañ ay téere yoo xamante ni dellu na ca te li gën a yéemi sax damay faral di wax ne téere yooyu léeg-léeg mën nga ko wërlu fu ne ngir am ko te doo ko mën a teg bët mën nga koo yónnee ci réewu naari ngir bëgg koo am doo ko mën a am kon loolu li muy ne mooy ñoom liir yi teeloon na leen waaye xam-xam ñoroon na leen lool bu dee tomum ñaareel bet ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu am doole euh, te mën a jàpp ci liggéey mel ni ñu jàpp ci ndax xam-xam moom ki ciy yëngu di bind moom daa war a toog rek di bind lépp lu am ni bind na ko am mbooloo moo xam ne dañuy taxaw ngir mool ko ba mu mën a tasaaroo ndax bu fekkee da ngaa bëgg di xalaat ngir bind ak téere boo paree xalaat yan yoon ngay jaar ngir man koo génnee lolot mën naa doon ay jafe-jafe ci borom sëñ Abo xamna téré yi nga doon garal sank muy fukki téré ak ñaar mel na ne gis nañ ne mol bi baxna euh ndax manef na xam fuñ ko molé ak it muassasa bi nga ne sulamul wusul ndax ñom ñoko ko ci seen dolay bop wala ndax am na ñom tini japp nañ ci ak ku ko bëgg tamit fan nga mëna jaar ngir man ko am. alaykum wa rahmatullah seigne Sëñ jere jef seigne cherif ci laaj bi am solo bi seigne Mbàkke wa li nga wax rek téré yi ñu tim suñu karam nga xamni ni fukki téré la ak ñaar mën nañu wax ni ci bir dëkk bi lañ ko euh eh, niñ ko doon waxé légui rek xamnañ nañ ni jumtukaayu mool yi mom légui tassaru na ci dëkk bi lool ñoo ngi ci doon ben euh matbaatu bu ñuy wax matbaatu eh, borom suñu daawu sam tu moy bay Serigne lay bi mu jiite nga xam xam ngeen ko moñ ko doon jappalal diñ ci mool sha allah xamna ni. Euh, mode bi sax bëggoon nañ mu gën a génne ci beneen anam bu gën a yéeme bi waaye euh, xataayu waxtu waak ak xawoon na yàkkan bi giñ ci net ndax dafa affekkoon am luñ ci soxla woon xam naa looloo tax sax mu génne nii mu ngeen ko gisee kon euh, ñoo ngi ko moolee ci matbaa boo kon ci dëkk bi lañ ko moolee bu dee nag lu jëm ci financement bi nga xam ni moom lañ ko moolee mënees naa wax ni lépp rek mooy jógee ci poosu waa Sullam rawat na seen lajnatul ilmiya ñoom ñoo ci taxaw bu baax a baax def ci jéego yu am solo kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci jéego yooyu nga xam ne moom lañ def te loolu rek mooy seen liggéey loolu lañ ñu war a def eh, biñ ko moolee ba noppi nag ñoom eh, li ngeen ko xamee rek dañoo waxoon ni moom eh, ndax ndax laaj na bi dafa nekk benn liggéey bu ëpp solo liggéey boo xam ni moom ni ko Sëriñ Chérif doon junjee léegi mooy mu àllafaat Sëriñ Mbàkke bu si nga xam moom la taalif yëpp lañ bëgg a taxaqiq xool nuñ koy génnee ba tasaare ko ba nit ñi mën cee gën a jariñu léegi nag balaa loolaa xew nag te ñoo ngi woon ci benn téere jukki nañ ca benn ba nekk ca xëy na fekk ci kanam di ngeen ci dégg dara wala deen dajewaat fi incha allah waxtaane ko ñu moo ñu ne balaa loola nañ génne lii nga xam day jëmmal wane ni daayira bi jéegu na benn jéego waaye am na jéego yu mag yoo xam ne moo ci ginnaaw yoo xam ne bëgg nañ ko tàmbali ci mbind Sëriñ Mbàkke bu noppi rek ñu rek ci ba ca des rawatina biñ jiital nga xam ni moom mooy tarjama bi mu def ci Cheikhul Khadim nga xam ne moom 1926 la ko defoon ci ñoo ngi ci loolu ñoo ngi ci liggéey kon di ci woo mbokk yëpp képp ku ci mën rek ci anam bu nekk ba mën a génn ci anam bu yàlla ñoo soxla nañ ko eh, ni nga ko xamee nag téere yi ñu tim sin kanam li daayira bi xalaat jamono bii mooy eh, denc ko fii ndax nu sax yi ñu ci génneegut bareegul lool dañ kaa bëggoon a teg fi rek léegi mu nekk loo xam ne mën nañ koy liir képp koo soxla mën nañ la nga liir ci li ñu bëgg a ko bu yàlla defee bañ jublu ci nag wutal ko budget bu mag bu waa ko mool xool maktabaat yi nekk ci Touba ak li ko wër wala ci nekk senegal Sénégal fépp fu ñu ko fa mën a amee rek ñu amee ko fa ndax day liggéey bu am solo boo xam ni ni ñaa laaj fu nekk laaj boobu laaj na lañu bañ ko piblier ci internet ba léegi daal ni ñaa ngi koy laaj waaye dañuy xam ne mbokk yi rek mooy ne lii dañ doon wane rek ab bunt la bëgg mbokk yëpp koñ bu nekk dëkk bu nekk kër gu nekk ci Touba warna yang yëngatu ci nyep def ni ñëpp mooy di génne xam-xam te di ko teg ci anam gu wér goo xam ni képp gis du ci am benn sàkk kon eh, ñoo ngi wan mbokk yi daal ni ngeen ko gisee rek insha allah am nañ mashron boobu am nañ projet boobu pour génne ko ñëpp àgg ci muy jot ci ñëpp képp koo soxla boo mën dem ci maktaba di fekk ko fi waaye insha allahu taala loolu bu kiyee rek suñ mbàkke ni ñu ko waxee deen amaat benn jotaay xam-xam boo xam ne bu yaatu lay doon insha allah leeral loolu lépp kon daal mënees na yamale foofu laaj boobu rek wala tontu boobu wan nañ daal eh, ci kanam incha allah liñ nekk ci beneen liggéey bi moo tax sax loolu xaw a xat waaye eh, boo ko waxtu bi mayoon dinañ ko gën a leeral kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abul Baraka ci tontu bu am solo bi nga xam ne tontu nga ko ci laaj yooyu ñu laajoon mel na ne daaira bi di Sullamul Usul ñoom ñoko mol ci seen dolay bop waye fi ci dëkk bi tam lañ ko molé muy mol bo xamanteni ku ko jangat sétantal ko da nga yegg ne mol bu dëgër la tay baxna euh ñu ñaan suñu borom def ci barké ak euh ba mu gën a yaatu ndax ni nga ko waxee mel na ne doonagut luñ war a tasaare waaye ko soxla rek bo ñëwé ci barab bu melni da nga fi mëna am wala tamit dinañ la ko al a aal ba paré nga ci wat ko xam naa Sëriñ Sarif day mel li ñu dese ci waxtu bëreetut dañ lay jox nga wax ci yenn ci procès yi nga xam ne waa muassa bi am nañ ko te mu jëm ci liggéey yi nga xam ne moom la Sëriñ Mbàkke bu sa liggéeyoon xam naa su ko defee ci biir téere yet ñu tànn ci benn téere boobu te nii rek danga ñu ciy defal ab tënk bu gàtt laataa ñuy tëj jataay bi euh, jërëjëf Sëriñ Mbàkke jërëjëf Sëriñ Abo waa xam naa ngir njëkkanteeg waxtu wi rek euh, ku ne xam na ni Eh, sëriñ Mbàkke mo dafa nekkoon sampu sëriñ Touba nekk koo xam ka yo xam-xam la bayyi fi lu bare bare timit nga xam mom maktabam mi ngi fi ba léegi eh, ndax eh, ñimu jangal jàngal fi ay téeréem mang fi waya yi ci ëpp kenn la guko won yenn ay bayit la yo xam yu la yo xamante ko wax ci fann yu wuutee wuute am yo xam ci walu ay fatawa la yo xam ci walu fiq ak diine comme ni ko docteur Khadim Ifan leerale nga xamanteni bo set ci walu ilmul falak am na ci abiyat mutafariqa yoo xam ne kii day mokkal lii kii mokkal lii kii mokkal lii yi nekk ci diw yi nekk ci diw yi nekk ci diw ci wàllu téeréem boobu ñuy wax kayfiyatu tahdidil qiblati li ahlil qutri sénégal yi waaye wala kayfiyatul istidlal li maarifatil xibla wala mu ko waxee daal mooy téere la boo xam ne dafay tegtale nu ñuy xamee xibla ci waa sénégal mu def ci ay tënk ak bayit yu rafet yoo xamante ni maanaam euh, jaroon na ñëpp xam ko waaye dafa am lu mu laaj ndax génne gi ak dajale gi mu nekk ci benn place li tàqaliku woon ci njaboot bi ñu dajale ko loolu bokk na ci mastron bi nga xam ne Sullamul Wusul taxawee na ko bokk na ci bi lis ñu ëbboo junj léegi e, téere bu am solo boobu nga xamante ne nii saaru taqdiim la woon taarif la woon ci boo xam ne sëñ Mbàkke da koo defoon di xamle kan mooy Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak i jaar-jaaram ci tënk bu rafet ci façon defin woo xam ne maanaam yàlla na yàlla defal tawféex ba téere bi génn waaye rafet na rafet façon rafet goo xamante ci nekk ci ay maxlumaat taarix yi ci yoonu murit ak li ci nekk ci ay njariñ ci ay axwaal yoo xamante ni sëñ Mbàkke xam na ko ci sëñ bi ca xaw ko ca junj mu wala mu leeral ko ca te nee woon na sax du ma wax yëpp wax na ko ci mimiyaam bii nii li ma xam ci sëñ bi yëpp ci ay xususiyaat laa bo suufu du ma ko wax mukk wala waraama raa imun donte aji so aji aji sàkku sàkku do ko ci man waaye xëy na bee la tax mu wax ko noonu mooy sëñ bi moo ko sàkku woon ci moom ndax ba nga xamante ni ay jamono ñëw nañ bañ bëgg a mool téere sëñ bi dafa mel ni sàkku eh, waa dëkk ba mooy naar ya ci waa sàkk woon nañ ñu xamle kan mooy kii mooy mooy kan nañ ko xamle ba pare doog a mool ay téeréem ci la sëñ Touba joxoon sëñ Mbàkke bu sa ndigal nag ni ko xamle ma ndax yow xam nga ma. nga xam ne foofu dafa nekk bayna sa bayna baynal matraq wa sandaan comme nañ koy waxee ay jamono ne woon na ko bu ma bu ma bu bul waxeete man ci mooy bu defee miim yaam am solo bii ndax dag maa xam bul bind ci ci man. ay jamono ñëw mu ko bindal ci man loolu sax booy xoolee oslo bi mu bindee dafa nëbbutu nangu ci sax def turam. daa mel ni keneen koo xam ne daa ñëw rek di wër ci dëkk bi ba gis ko dëgg ab cheikh bu ñu wax Cheikh Ahmadou Bamba mu laajte ay mbiram loolu la bind foofu ka risaala taxarif nga xam ne eh, da ko ala ala minwaaril la ko def lu ñuy imaginer donte dafa do boole bayal xaqiqa wal xayaal xëy du ba ñëw ci lépp waaye la ci nekk dafa am solo muy téere bu yéeme boo xam ne ñu ngi ci euh, masron bi ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey daanaka sax pare na xëy na euh, yenn ardu ko yenn borom xam yi ñu def ci seen i taqaaris rek ba ñu génn ko war koo mool di ci profité tamit képp ku ci mën a jàpp ci muur gi nga jàpp ci ndax itam lii fi nekk ko suñu comme ni waxee dañ ko def ci suñu juxuut sax siya rek waaye euh, xëy na téere bu mel ne moom bu génnee moom yoonu murite ko moom ndax ci histoire lu histoire murid la concerné ci da cay dellu da cay leeral lu am solo loo xamante ne nii jar nañu mu nekk téere boo xamante ne nii ci maraaj yi gën a mag ci yoonu murid ndax sëñ Mbàkke mi nga xam ne moom moo ko dund fekk ko moo ko moo ko nettali euh, ko fu wér kon téere bu jar a tasaare la mooy bi nga xam ne ñu ngi ci muy xamle gi nga xam ne sëriñ Touba sëriñ Mbacke Bousso defal na ko defal na ko sëriñ Touba te nga xam ne njaboot gi ñu ngi ci di ko di ko di ko tax ngir bëgg koo génne kon waaye du yemuñ ci loolu dañoo bëgg lépp loo du ñam ci turaasu sëriñ Mbacke Bousso waaye lépp loo xamante ne nii turaas ci madrasal Guédé wi la ak lu dul Guédé sax te nga xamante ni bëgg ngaa jëflanteeg ñun boo ñëwee ci wàllu xam-xam la ñu yëngu ñun ndax ci xam-xam amul frontière kon suñu masrox daal mooy xidmat xidmatul ilmi wal amal maanaam liggéeyal xam-xam ak jëfe loolu nag euh, ndigal la loo xamante ni Serigne Touba moo moo ko bàyyee woon Serigne Mbacke so moo tax Serigne bu Bousso dénkaanam yooyu ko ne xam na ko ba mu demee ba nekk mag daay boole woon njaboot gépp ne ñett neen ko bàyyi xel képp ku fi nekkal Serigne Touba neen ko jàppe Serigne Touba waaye tamit yoonu jàkka ji bu mu booy daara ji tamit bu mu fay mukk te mooy xam-xam bi waaye tamit sama mbokk yi nga xam ne mooy sama mbokk boobu yi ma fekk seen bët seen seen bët bu mu xonq mukk ci yéen waaye kon loolu mooy al ilmu wal amal rek la la la la nga la woon moom Serigne Mbacke loolu tax tamit njaboot gi di ci nab nabi yàlla nag mi ngi defal tawféex ndax dafa mel ni yu baree bari yu doon réer mi ngi feeñ ñu set ñu gis ci bindum Serigne Mbacke lu bees loo xamante ni yenn yi jóge Mauritanie yenn yi njaboot gi téyewoon yenn ñu gis ko eh, eh, ticaafoon nii rek ci téere njaboot gi tax bu ci nekk nag ñu ngi koy dajale par benn benn ngir jëm koo móol génne ko ba nga xamante ne nii nit ñi dañ ko mën a jariñoo ndax Serigne Mbacke moom li mu liggéey mel na maanaam yéeme na lool ca bari waye nak ñu ci ñaan yàlla dafa ñu tawfiq xeyna ñi ngeen ngi waxtu bi rek euh dina fi jema bi nga xani mom la gëna maîtriser moy bima bindal sama bop moy hadith munkar bi dina ko xamle ak wi nga xani mim ya bi xeyna li tax ma koy xamle donte man bindu mako ko kenn ci mbokk yako ko bind waaye xëy jëmi xasida gi xamna ko motax day xasida gu am solo go xamanteni ni serigne Touba serigne bakki Bousso ci tag serigne sëriñ Touba araaka tuhaati shara wal qalbu haimu ala zamanin fihi al-fisahu lfisaahu bahaimu muy xasee gu xam dafa neex lool te lay wax naan huwa alxawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsamana fal kullu saafin wa naimu leeral ci lu bëree bëree bëri ci fi Sëriñ Tuubaa nga ne uslu bi mu koy waxee sax comme ni nga wax da ngaa ne xaa kii du suñu Mbàkke Buso moom dafa rafet rafet arab yi ak balaaxa bi ak jinaas bi ci nekk dafa yéeme lool nga xamante ni bëri na ay programme yi teg ci école bi di ci jàng maanaam kutubul luxaa yi mel noonu bii waroon na cee bokk ndax la la ngay jàng ci yeneen bayit yoo xamante ne kaneen na ko def imrul xaysi wala kaneen soo ko jàngoon téere bi ci wàllu béy ci wàllu adab programme la boo xam ne bu leer naññi la boo xamante li nga soxla ci sarwal mu fa daatu lu xaw ya mooy ci wàllu langue arabe mi ngi ci ci wàllu balaaxa mi ngi ci wàllu naxu mi ngi ci xoolal jinaas ba dafa de arakatu haati chahra wal qalbu haimu ala zamanin fihi lfisaahu bahaimu noonu la ko topp nag ci xeet jinaas ak tatbiq ci xëy na adabatul balaaxa loolu nag boo gisee baaxis bii nii loolu la woon jàngat nga xamante ni ki ko taalif kenn gi las ñu fàttali ma turam Euh, sëñ Ibrahima Bousso euh, waaw moom bi mu ko taalifee xëy na moom mi ngi génne waaw lool tamit lu am solo daan naa ko ngi dellu ci yi nga xamante ni moom la njaboot moom la mag ñi taalifoon ñu ci def seen recherche doctorat wala recherche solo ndax liggéeyal naar yi tamit ca bàyyi sa bopp ci am loo mën a liggéeyal sa bopp tamit daa daa daa fayda da ngay leen di ñoom ñu nangu valider sa téere boo xam ne kenn ci mag ñi fii Sénégal ñoo ko bindoon nga leen bii moom la bëgg a diraas ñu xool ko nga nga nga dirasa ko mu delu sam rew mom dafa dafa am solo waye kon dirasa tahlili, ya, rek la manam eh, da koy jangat ci walu qasida gi ci walu balaaxa bi ci nekk ak eh, sarwa xawé bi ci nekk ak jinas bi ci nekk lepp lépp liñ li ñuy wax dirasa ko xam na eh, arab dal buñ ñu leen waxee diraasa tahlili ya ding ko xam diraasa adab yi la moy da koy day jangat yu rafet ci nekk ci walu adab ak ni wax yu mel nonu waye leral la ci kan moy seigne Mbàkke bousso ak na askanam ak yu mel nonu nim mu juddoo ak fi formé wok ay meloom ak yu mel nonu comme li nga xam ta ñak ci kuy pep kuy talif waaye kon diraasa daal la boo xamante nii borom da ko def xëy na borom moo ci gën a mën a wax waaye doon jàngal rek li nga xam ni mooy nekk ci xasida gi ci biir ci ay sew-sew bu dee beneen nga xam ne xëy na maa ngi ko téléphone bu yàgg 2000 euh, maa ngi ko bindoon 2005 mu nekkoon bi ñu nekkee sana saaniya baxsu ndax boobu jaami islaam da ngay def ñaari baxsu euh, boo nekkee sana saaniya deuxième année da ngay bind boo nee ba quatrième année bi nga bindaat loolu daa am lu ko waraloon xëy woon ci jaamiha bi loolu moo taxoon bi ñu nekkee sana saani yow ñu defoon euh, bii nga xam ne comme que ci xadis lañ taxasus mooy kuleetu xadis lañ génne ñu tànnoon bi nga xam ne xadisul munkar la loolu li ñu ci dugaloon rek mooy euh, xam-xamu xadis dafa xawatu mu ranke Sénégal fi nga xalaat léegi soo euh, mooy xadis bu baaxul rek ngay ngay mën a wax waaye la ca nekk boo ko bëggoon a leeral ci olof dina andil jafe-jafe ki koy diglu waaye kon xadis boo xamante daal xëy na maanaam daa am lu ca nekk tax dañ ko war a sànni teg ko fële loolu moo nekkoon euh, kii bi waaye ci wàllu mustalax la niñ ko defara tamit daa mel ni boo ñëwee fi ci lu faratul muxtawayaat leeral naa ko ci mooy xamle naa lan mooy xadis bu munkar mooy lan mooy bu baaxut bi mooy lan ci langue arabe maanaam munkar ci langue arabe mooy lan waaye ci istilaax bi nga xam ne moom la waa xadis wax bu ñu nee xadis bi munkar la luñ ci jublu ñoom ak la ne ca biir donte ay werante yu bari yoo xam xajut fii moo ci nekk waaye jàppal ni munkar mooy xadis bu baaxul rek leeral naa tamit mm, mm, nakaara googu mën naa am ci sanat bi sanat bi mooy càllala gi moo am problème mën naa nekk tamit ci matn bi mooy yax bi moo am problème waaye leeral naa tamit lu am solo mooy eh, diggante li ñuy wax munkar ak chaz hadis chaz ak hadis munkar lan mooy leen tàqale chaz mooy boo xam ne xëy na ki ko nettali moom ab siqa la mooy ku wóor la waaye dafa wuuteeg ñi wóor ñi li wax te ñu te te ñi wóor ñi ñoo ko gën a bari gën ko mën a mokkal maanaam ñett ñu wóor ñu mën a mokkal nga fële waaye kenn ku wóor ku mën a mokkal ci wax ñee ko dàq mokkal dafa wax dara wuuteeg la ñëlee wax carrément kooku loolu daa garaaw moom di nga laaj sa xel sax dina dem ci munkar ak saas ban moo ci gën a garaaw waaye ñaar yëpp a garaaw munkar nag kon bokkut ak saas munkar moom ki soloo moom du nekk siqa moom benn daxiif lay doon wala saduux wala koo xam ne daal bu daaxafun fii baax dem masaayix yi am na ci ñoo xam ni moom bu nettali la ci ñoom nettali bi du baax kon na lu ne ci moom daal du siqa ba pare mu nett li ko wuuteeg wuuteeg gaay yi day mel ni boobu bu garaaw la kon mooy koo xam ne daal àggut ci gaa yi ba pare wuuteeg gaa yi ki àgg ci gaa yi ba pare wuuteeg gaa yi a àgg ci gaa yi ba pare wuuteeg gaa sax moo tax ne ki nga xam ne àggut ci gaa yi moom far ba pare wuuteeg gaa yi kon daal mooy xadis boo xam ne baaxul rek man ci misaal waaye leeral naa ci lan mooy atteem moom xadisu munkar uh, ak tamit léeg-léeg nga gis borom xam-xam ni xaasa xadisu munkar te jubluwu ci liñ xamoon ci istilaax bi nga xam ne leneen la ci jublu nga xam ni lu yéeme la ci jublu wala lu lu tumuranke la ci jublu la leneen kon daal ci wàllu mustalax rek lay wax ci xam-xamu hadis bi muy xam-xam bu am solo mooy hadis yi ñu war a jël ak yi ñu warut a jël euh, mu nekkoon ab baax boo xam ne maa ngi ko defoon ci jaami islamiya ci Madina Munawara 2005 kon daal euh, ci gàttal rek sëñ euh, Mbacke ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu barkeel jataay yi ak li nga xam ne yaa ngi koy taxawe ci wàllu xam-xam ci émission bu am solo bi Al Lawh wal bi nga xamante ni nii day leeral xam-xam bi nga xam ne mi ngi ci dëkk bi waaye tamit de leeral ndaw ñi seen tolluwaay ci wàllu xam-xam xam naa bu fekkee am na lu ma fàtte wala yu mel noonu ñu fàttali ma ko ma mën cee jaaraat di la sant di la gërëm. ok jërëjëf sëriñ Sarif jërëjëf sëriñ Abul Baraka ci tontu yu leer yi xam na jotaay bi sax mel na ne liñ ñu cëralee woon ci waxtu romb nañ ko waaye lépp rek ngir bëgg téere yi nga xam ne moo nekk suñu kanam ñu gaaral ko gaaral boo xam ne. mbokk yi koy dégg te xamul ni mu demee te xamuñu ni nga xam ne noonu la demee ñu man koo xam bu baax a baax waaye jàpp naa ne sax benn bu ci nekk comme que xam nañ ki ko taalif mm-hmm. wareef na ko mën a beral jataayu boppam mm-hmm. kenn ku ne ñu jël la mm-hmm. jàngat téere bi nga xam ne moom nga bind nga mën a leeral li ci biir waaw waaye nag xëy na lii li tax ñu def kon mooy génnee nañ lu bëree bari te buñ ko jëlee benn par benn liñ bëgg mën nañ ko bañ a am moo tax ñu booleendoo lépp man mm-hmm. koo gaaralandoo ci benn jataay mm-hmm. waaye loolu moom mooy yéene ji incha allahu mm-hmm. taala kenn ku nekk rek ci ñi bind téere yi na waaj ba jekk xam ne bis dana ñëw ñu fëgg buntam ngir mu leeral ñu li nekk ci biir ñu ngi lay sant bu baax wax dëgg yàlla di sant sëriñ abul baraka di sant euh, sëriñ seexu naa mu sëriñ siidi di sant waa Gédé gi yëpp ci seen taxawaay ci wàllu xam-xam ci sàmm ndono li nga xam ne moom la fi sëriñ bàyyi dëgg yàlla gis nañ ne ñor na leen yitteel na leen sering Sidi mu sering mulai ya yaakaar naa na ci taxaway rafet sëñ Sarif juñu na lu ya bare bare ñu ñaan mom suñ borom yokku ko ay leer te gën ko defal tawfiq ak taysir famu ne dafa deug yalla yakarna li liggey bu koy begg lolay doon ah, ñu ngi koy ñaanal bu baaxa baaxa baax ah, gere daal am na loo xamante nekk na fi ci xam-xam tay taxaw na ci taxaway bu am solo lol xamna kon mbokk yi ah, day melni li moy li li andi lon ci jotaay bi len digaat benen jotaay ak kenen ci borom xam-xam yi ak benen téré insha allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bayaatu xayra wal khalami walxalami liwaci rabbil wara wal khalami